yàlla ñu yàlla fegal mépp musiba ak bépp balaa. yàlla ñu yàlla fegal bépp musiba ak bépp balaa yaa rabbi. yàlla ñu yàlla fegal wépp xay ak borom xay wa. yàlla ñu yàlla fegal wépp xay ak borom xay yaa rabbi. yàlla ñu yàlla xiir ci lam bëgg ak ci bëgg. xiir ñu ci lam gërëm yaa rabbi. yal na yàlla jox ñëpp seeni i càkkutéef ci saayir ak ci baatin. yal na yàlla i càkkutéef ci saayir ak baatin yaa rabbi. yàlla ñu ñun yal nañu yàlla baal ñun ñëpp. baal suñuy wajur ñun ñëpp. baal suñuy wajur ñun ñëpp. baal suñuy mbokk yëpp. baal mbokk ñun ñëpp. baal suñuy xarit. baal suñuy xarit. ak suñuy taalibe. ak suñuy ak képp ku ñu dénk ñaan. ak képp ku ñu denk ñaan yaa rabbi. képp ku am ak ñun kolere. ak képp ko xam ak ñun kollëre. yal na ko yàlla jëriñ ci saayir ak ci baatin. yal na ko yàlla jëriñ ci saayir jëriñ ko ci baatin yaa ci àddina ak ci àllaaxira ci àddina ci àllaaxira yal nañu yàlla wattu ci gëm yàlla yal nañu yàlla wattu ci gëm yàlla wattu ci suñuy doom wattu ci suñuy doom ba pencam yàlla ba pencam yàlla yaa rabbi yal nañu yàlla boole ci yàlla boole ci jaamam yem sopp ñam nangul ñam nangul yal nañu yàlla jubal yal nañu yàlla jubal yaa rabbi kër ci lam bëgg ak lam gërëm kër ñu ci lam bëgg ak lam gërëm yaa rabbi yal nañu may gëm yàlla gu mat yan nañu yàlla may gëm yàlla gu mat. taxee ñu ci topp yàlla gu rafet gu dëppoog sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. taxal ñu ci topp yàlla gu mat gu dëppoog sunna si yonent bi sallallahu te nangul ñu ko. te nangul ñu ko yaa rabbi. te faat ñu ci bés ba gën ci suñuy bés. te faat ñu ci bés bi gën ci suñuy bés. gërëm ñu. gërëm ñu. yóbbu ñu aljanna ci kër soppeem ya. yóbbu ñu aljanna. jëkkër ak soppeem ga ñu dëkkaale yonent yàlla Muhammad ak yonent yi ak saabaam yi ñu dëkkaale yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi ak yonent yi ak saaba boole ñu ci soppe yàlla yi gisee ak yàlla boole ñu ci soppe yàlla yi gisee nga xam ne lépp luñ mébét yàlla dana leen ko jox nga xam ne ñoom lépp luñ mébét yàlla dana leen jox loola képp ku fi dikkoon ak soxla yàlla na ko yàlla faj li ci dun ma yàlla képp ku fi ñëwoon ak soxla yàlla ko yàlla faj lépp lu ca duhut mooy yàlla. ku fi am ku am soxla ku mën a doon yàlla na yàlla faj soxla sax. ku fi am ku am soxla lu mu mën a doon yàlla ko yàlla faj. ku fi amoon ku ràgg yàlla na ko yàlla saafara. ku fi amoon ku ràgg ko yàlla saafara ci kanam ak wét. ku fi ràgg yàlla na ko yàlla saafara. ku fi ràgg yàlla la yàlla saafara. ku fi am bakkaar yàlla na ko yàlla baax. ku fi am bakkaar ko yàlla far. mbooloo mi yàlla bu ci yàlla def bu ci yàlla def mukk ci rab safara yaa rabbi. ñëpp yàlla na leen yàlla dugal aljanaam ji. mbooloo mi lépp yal na leen yàlla dugal aljanna. barke yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. barke yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. barke Seydina Abubakar Sadiq. barke Seydina Abubakar Sadiq. Omar ibn Khattab. عمر بن الخطاب عثمان بن عفان عثمان بن عفان علي بن ابي طالب علي بن ابي طالب طلحة talhatu subayru subayru saadu saadu said said abdourahman ibnu hoof abdourahman ibnu hoof abu ubaydata ibnu jara abu ubaydata ibnu jara barke ñooñ badar barkeem ñooñ badar barkeem ñooñ uut barkeem ñooñ uut barkeem ñooñ hudaybiya barkeem ñooñ hudaybiya barkeem ñooñ laxsaab barkeem ñooñ laxsaab barkeem fatu makkata